commencé benn affaire boo xam ne bu demee continuer xëy na du baax maanaam euh, publication de rapports yi nga xam ne amoon na fi euh, aussi euh, demander que yaa ngi koy wax sànq jub jubal jubanti dëgg la baax na. mais ak ni ñu ko bëgg a defee aussi est-ce que est-ce que dina dina dina baax. mais Mamadou déjà cette loi bi ñuy préparé pour les lanceurs d'alerte aussi. mais xam nga jub jubal jubanti ak woote liggéey c'est-à-dire que moi je même étonné. que loolu mu jaaxal nit ñi parce que tey euh, j'ai vu que y a des ministères qui disent que maintenant il faut ñu def ay pointage pour nit ñi di ñëw huit heures du lu bees aussi non je di wane alors du du du nekk lu bees moi je dis fondamentalement c'est-à-dire moi man sama bopp laay waxal mhm. man loolu ça ne me pas parce que man ku ma xam ci laa nekkoon c'est-à-dire man ku ma xam-xam ne fu subatal jotee maa ngi ci bureau ba et peut presque du ma mujjee génn dama ciy jaamu yàlla. Mhm. te réew ñun ñëpp ñoo ko bokk et comme je dis je suis sur la scène politique j'aspire demain. à mhm. faire partie de ceux qui vont transformer ce pays. àdduna nag boo nanguwul kenn jiitale doo jiite kenn mooy la générosité parce que man li ma wax rek lu ma fi mën a waxal nit lu baax ci biir réew mi rek mën naa ko waxal sama bopp waaye mhm. nag comme xam nga médaille kenn du ko tappal sa bopp moo tax nit da ngay def rek ngir yàlla quoi <laughs> maintenant vous savez y a yoo xam ne ni forcément ce sera pas optimal ay erreur la parce que nit nit kese la et projet il y a des dispositions que j'ai lues et moi je suis pas d'accord quand on parle de monnaie locale mhm. parce que dama ne intégration africaine bi ñu woote loolu avant loolu c'est important ah. ah. mais li mu wax mooy par rapport ak euh, li ñuy sàkku ci administration bi publication rapport yi euh, les gens craignent que li daloon Macky Sall ba mu perdre trois ans. de son pouvoir arrivé ak ñi en fait maanaam topp ñenn ñi. non dugg fenn ba ëllëg. non non non Mamadou le principe de la redevabilité. la redevabilité mooy képp kuy gérer ay fonds publics vous être redevable publier des rapports ce n'est pas extraordinaire des rapports sont. censé être public li ñuy bañ mooy ñu politiser après. non voilà parce que Ousmane Sonko il il était en front. ak ñu bëree bëri administration euh, quand on dit un Sénégal souverain juste mm -hmm. moi je prends au mot juste et prospère ce, ce mot juste là ce n'est pas pour refaire la même chose parce que de toute façon les Sénégalais sont là ils veillent te xam nga mhm. ñëpp xam nañ ne Sénégalais bëgguñu kuyu am doole di noot bëgguñu injustice mhm. et j'ose espérer en tout cas man day wax fa dëgg neex yàlla li ma jot a gis président Diomaye di ko teg ci ay kàddu ak ni muy waxee ak les assurances qu'il donne ak fa muy euh, ni mu dalee ak vraiment euh, les actions que le gouvernement mène sous la conduite du premier ministre Ousmane Sonko man moom gisaguma en analysant politiquement loo xam ne nii fitna la. Mhm. maintenant nag que les gens ne s'offusquent pas qu'on publie des rapports qui doivent être publiés qui devaient être publics parce que c'est le principe de la bonne gouvernance c'est le principe de la redevabilité moom Mamadou kuy xaalis public mais il faut s'attendre demain à amul problème. mais y' a que ça. voilà arrêter les travaux si littoral bi aussi. Euh, non indi ay mbir yoo xam ne. maanaam ku tegul ci yoon je suis d' accord. mais arrêter lépp am na ñoo xam ne ils sont ils sont dans le droit. oui aussi c' est à voir non ça c' est vrai mais xam nga aussi il faut aussi donner un peu comme je dis les quatre vingt dix jours de grâce les cent jours de grâce. il faut quand même que sénégalais xam. mais Mamadou yow nit ak ku mu mën a doon nga ñëw ñu am luñ la dénk lu bees ay nit yoroon ko. yow nga ñëw yor ko pour la première fois mais la première chose. nga saytu ko xool nga saytu xool qu'est-ce que vous avez en mesure de faire en mesure de faire lan moo fi nekk lan moo baax lan moo jubul yooyu mais ci temps de seet boobu noonu il faut pas que les gens soient pressés comme moi je dis euh, les gens qui sont en train de faire leur travail. Mm-hmm. normalement et correctement doivent pas s'offusquer que ñu leen naan da ngeen xëy ci heure. wala da war a liggéey parce que c'est le critère de la performance que nous devons appliquer parce que Mamadou nag quand même dafa jot aussi ci biir administration bi que les gens aussi comprennent que boo xëyee suba teel di liggéey ba ngoon da nga war a xool quand même quel est votre rendement et votre mhm, productivité nekkul rek ñëw xëy toog ci bureau taal internet bi yor Facebook bi à la fin du jour voilà être être présent au bureau ne ne pas. mais moo tax ma moo tax ma ne là où on doit accentuer c'est les contrats de performance exactement et je pense en tout cas nous les notes que nous recevons en tout cas aujourd'hui venant du premier ministre on sent nettement qu'il y a ce critère de performance parce que il y a des deadlines qui sont fixées on nous demande vraiment de dire là où on en est je pense qu'il faut qu'on leur laisse le temps ñu xool faire un peu quand même on mais pendant ce temps, mais les maintenant Sénégalais, ils souffrent, mais, mais, mais non mais maintenant il faut pas que les gens parce que moi je dis au-delà de faire ça la priorité aujourd'hui ce n'est pas d'être dans des poursuites à ne pas finir parce que ça ça va retarder beaucoup de mhm. choses de être dans l'action de gouvernance et de